ahlan bi shahri jotaayu koor ahlan la bu ngeen di ànd ak fadilatul ustaaz ak docteur Mouhammad Ahmad Lo ngeen mën ko am ci DR Malo TV bis bu nekk ci weeru koor gi bu 19h jotee mën ngeen ko xaarit ci whatsapp wala facebook ci DR Malo officiel ngir ay leeral jokku leen ci numéro yi 77 713 82 82 wala 77 631 77 37 bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wassalatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa mbokki jullit di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñi ñuy topp ci DR Melo TV noo ngi del siwaat ànd ak yéen ci sun jataay bii di liqaat ramadaniya muy jataay ramadan yi nga xam ne dañ koy toog di ko waxtaane lu jëm ci e, sunu koor ak lu jëm ci weer wi ak li ci nekk ci ay ngëneel ak ay yiw ngir jaamu yàlla yi mën cee jëriñoo bala leen a weer wee kon tey mooy sun ñaar fukkeelu jataay ak juróom-ñett ñu jëmale ko nag ci zakatul fitre zakatul fitre moom la tudde tuddee muurum koor bokk na ci jëf yi nga xam ne ay joxe la fi sabilillah yoo xam ne ci weer wi lañ ko war a def waaye ci fukki fan yu mujj yi lañ ko war a def waaye ci lu jege iid gi itam ci lañ ko war a def zakatul fitre nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ko taal ci bépp jullit mu joxeel ko boppam ak képp koo xam ne dépense moom la war képp koo xam ne ci yaa koy dundal nga joxeel ko ko joxeel ko sa bopp zakatul fitre nag ni mu toll lu gàtt-gàtt war mat ñaari kilo ak liibar ci ab ceeb ki nga xam ne dafay nat loolu bu ko neexee mu joxe ko ci ab ceeb waaye bu ko neexee itam mën na koo joxe ci xaalis waaye nag dana jaado ci ki koy joxe xaalis mu bañ a yem rek ci xool ceeb ba lu muy jar joxe ko waaye faw war naa xoolaale ndax lii muy joxe mën naa dundal nit ci bis walla déet ndax mën naa dundal nit ci bis walla déet su fekkee ne daal ñaari kilo liibar ya la muy jar doomu aadama mën na koo dunde ci bis kon loola mën na koo joxe waaye su fekkee manqué na ko nag na ko yokk bam mu àgg ci nu gën a rafet ci loo xam ne dana mën a dundal doomu aadama ci bis ki nga xam ne dafa ñàkk ba amul lum dundee bokk ci ñi yeeyoo asaka kooku zakatul fitr amu waru ko doonte moom ci boppam dafa yor ak njaboot kooka kay daa war a lekk zakatul fitri waaye kooka moom du ko joxe sharia nangu na ñi teel koo joxe borom xam-xam yi dañ daan wax ne ñaari fan wala lu nuroog moom ci lu jiitu iid gi manees naa joxe zakatul fitr waaye at mu mel ne atum ren mii day eh, man damay wax ne ku weer wi ter woon sax nga joxe ko itam sa zakatul fitr mat na ndax kat gépp joxe goo xam ne fii sabilillahi la bu fekkee ne dafa daje ak aajo fa ko nit ko gën a aajo woo foofa la ëppe solo kon nag zakatul fitr nit ki mën na koo teel a joxe te jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko aajo woo kon eh, loola lu mën a nekk la waaye nag na wattandiku eh, nit ña julli ji ayit ba àggal te fekk joxewu ko su fekkee xas na ko def nag loola moom sarax lay tudd waaye joxeetul li ñu tudde murum koor moo tax ñi nga xam ne ay nit dañuy génn seen zakatul fitri ci waxtu wu teel teg ko ci seen loxo di leen ko séddaleloo ñooña jaadu nañu seddale ko lu jiitu iid ga di ñëw bu mënee jiitu ay fan moo gën su fekkee ne jiituwul ay fanit bu jekkee bañ ne weer wa feeñ na rek na gaaw balaa asamaan a set na àgg ci loxo yi ña nga xam ne ñooñu ñoo ko yeyoo lenn ci boroom xam-xam yi eh, sopp nañ ki nga xam ne ab ëmb la boo xam ne ci biirub yaayam la nekk suñuy génne asaka ñu génne waleel ko Ousmane ibn Affan radiallahu taala anhu daana ko def waaye nag ñu xam ne loolu bokkut ci farata ji waaye daal luñ sopp la farata ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farataal daal mooy kii nga xam ne mooy boroom kër gi ak ñi nga xam ne ñoom lay dundal ñooña moom waajib la ci moom mu joxe leen zakatul fitri su fekkee ne am na ko su fekkee dafa ñàkk nag kon ni ma ko waxee sànq ci ñi war a lekk zakatul fitri ci la bokk kon bu boobaa joxe ko moom du ko war kon day mel ni jataay boobu foofu lañ koy yëkkatee ba daje ak yéen ci sun beneen jataay di ñaan sun borom tabaraka wa taala mu defal na tawfiq defal leen ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man lam yatub fi shahrihi min dhanbihi fa huwa alladhi qad ba'a bil hirmani qad shammara